لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد المجاهدين وعلى آله هادينا المهتدين ومن اهتدى بهادي إلى يوم الدين mbokki téléspectateur ak téléspectatrices yi di si bii di Farokh TV fi ngeen ñu mënti nekk te di ñu suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax seen mbokk Modou Moukhtar Diop kéema ni ma leen ko waxee woon seen émission bii di jàngale al axdar ñu nar si ànd ak yéen fii biir di Farokh TV tabaarakallaahu téere bii nag téere bu barkeel la ki ko bind ñu ngi koy tuddee Abdourahman al axdar yi axdar yi mu yi mooy ñu doon bind ci taarixam dañoo wax ne maamam moo askanoo foofu ndax moom ku ñu tuddee Mouhamad ibn Saqir moom moo ko jur moom Abdourahman al Akhdari waaw Mouhamad ibn Saqir moom nag moom la Mouhamad al Akhdari yu jur kon maami borom téere bi moo moo cosaanoo ci xeet boobu ñuy tuddee al Akhdari yu kon moo tax ñu koy tuddee Abdourahman al Akhdari yu kon foofu mooy askanam mu doon xale boo xam ne ku yàlla mayoon xam-xam la ndax fanweeri at ak ñett rek la dund. waaye lim ci taalif si ay téere bëri na lool téere bii ñu nar a jàngale bi al axdar yi bindkat yi ne nañ moom la mujj bind ndax téere bi bu mu koy bind pare ci la génn àddina ndax boo xoolee fam jeexee da ko gëm ndax daa wax ba ci kanam rek mu ne jeex na mu ne intaha te borom xamoon na buy bind téere ba buy jeex dana la wan si ñu lay wane téere baa ngi waaj a jeex kon téere bii avant muy pare ci la borom génn àddina taalif na ci wàllu fëlëg muy walu xam xamu bidiw di lu jafé téré bobu lam ca way man na juroomi téméré beuy boba bimu koy way néna tukki ak juroom ñent 19 ans ñi né 20 ans la nga xam xam xam ba mëna bind ci walu bidiw deug deug ko yalla téla may la sulamun morawli muy téré bobu ñuy wax ci walu mantiq nga na téré la bo xamne bo koy jang nit ñi dañ ñaan légui tay nga dof li dana am na walu philosophe lay jangale moom xale bii di Abdourahman al Akhdari yu am 33 ans génn àddina moo ko liggéey kon sa dëgg-dëgg xale la woon boo xam ne ku yàlla defoon ni moon ci moom mbir la moom nag yàlla defoon na amutoon jabar amutoon doom kon ba ma liggéey waa ji ne yonent bi moo ne siraarukum wa saabukum ma ne ak kii iska li am sori na mu ne yonent bi daf ne ki gën a bon ci nit ñi mooy ab célibataire ah téere bii di nga xam ne barkeel na al Akhdari yu Abdourahman liggéey ko moom amul jabar bëri na lool ci borom xam-xam yi ñoo xam ne tey boo leen doon lim danañ ëpp fanweer ñoo xam ne ñëpp leen dégg te kenn yorul si woon jabar seen tur yi ñu ngi tàkk ba léegi. kon sa dëgg-dëgg loolu wax la yoo xamante ni nii daal ñu seen alléwo soriwul rek ala kulli aadama ñoo koy wax wala nga bëgg a bës kon comme téere bii ni ñu la ko waxee noonu la téere bu barkeel la tabaarakallaahu ñu daal dugg rek ci jàngale ko ci njàng mu euh, xam-xam bu gàtt. ci dégg ji boo xam ne nit bu xaw a kii la xëy na dañu ko sant rek waaye du xam-xam bu yaatu bu fi ne wala dégg nañ ko doo xamante ni jàngalekat yi dégg wuñ ko ko déedéet waaw waaye daal nii lañ ko bëgg a jàngalee premier bi bu ñëwee danañ la ko firil jaar ci baat yi jàll su paree ma taxaw expliquer la baat bu ne nu ko gars yi déggee bala ma firi woon jeex ma jaaralaa la ci firil la ko simple loolu nag bu dee li may wax leer na boo dégloo yalla man la dimbalé nga dégg moy xam fi ni dana la yomb te it su baba xam masala mi dana la yomb kon ñu dal di commencé téré bi borom téré bi commencé ne bismillah ma ngi tambalé ci turu borom bi mag ñi dal nañ ko firé ma ngi tambalé sama wax ak sama jëf ci turu borom bi ñu ne ko ban borom ngay wax mu ne arrahmaani la wax yàlla mi nga xam ne mooy xéewalul mbindeef yépp ci àddina am na it ñu koy firee mooy yërëm mbooleem mbindeef yi ci àddina nga ne ko xawma ko mu ne arrahim yi mooy yërëm kon yàlla mii moom laa bëgg a tàmbalee téere bi borom téere bi ne wa yàlla yàlla julli ñun xale yi nga xam ne dañoo tayal ci tafsir mu xóot ñoo koy firee noonu waaye mag ñi nga xam ne dañoo sonnoon ñoom ci tafsir ñoom ñu naan firi wasallaa yàlla julli allahu yàlla ñenn ñi ne wasallaahu yàlla yàlla dolli xéewal yëpp danaa la expliqué le ala sayidna ci suñ sang bi muhammadin muhammad wa alihi ak ay ñoñam wa sahbihi ak ay saabaam wasallama te musal leen mu ne alhamdu mbooleem xaaji cant yey ñeent lillaahi aji nekk la ñeel yàlla rabbil aalamiina yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindéef yi wasalaatu ak suñu borom wasalaamu ak muccal ak suñu borom wala nga ne wasalaatu julleeg yàlla yëpp danaa ci ñëw wasalaamu ak sërmalam ala sayidna yàlla nekk ci sang bi muhammadin muhammad muhammad man xaatimin nabiina ki nga xam ne moom mottali ñun solo ñi wa imaamil mursalina te moo jiite ñu yónni ñi mu ne awalumaa yi jibu lu njëkk a war alal mu kalafi si mu kalaf mi tasiru imaanihi mooy mu wéral gëm yàlla su ma maarifatu topp mu xam maa la nga xam ne yuslihu dana héwénal bihi ci moom farda aynihi farataay jëmmam ka ahkaami salaati lu mel ni attee julli wa tahaari ak attee làpp wala siyaami ak xattee koor kon foofu tey dana doy dars waaw noonu laa ko waxee woon dama ne dama lay firil mu wàcc bu paree ma expliqué la commencé na téere bi ak bisimilahi rahmaani rahim comme ni ñu ko yonent bi waxee nit lépp lu muy def te tàmbaliwut ko ak bisimilahi rahmaani rahim xam ne loola doo am barke moo mu commencé ko ak bisimilahi rahmaani rahim gannaaw loolu mu julli si yonent bi gannaaw loolu mi ngi sant yàlla bi nga xam ne moo nekk borom bindee fi bi nag mooy borom bindee fi ñenn ñi ne mooy borom alam xam naa nekkuñ ci tafsirul quran moo tax daanaka yooyu yëpp pour nga nar a indi alam yeeg indi yeneen yooyu yëpp day jël temps bu ëpp loolu ñaan na ne yàlla yàlla julli ci yonent bi te sëlmal ci moom mag ñi di ko firi xéewal ak mucc ndax salaatu dañ ne bu dee dafa bàyyee ko ci yàlla ko wa rahmatul muy ak yermane ko jugge ci yalla dem ci jamm bu dee ci malaika yi la bàyyee koo jëm ci jamm dañ leen di ñaanal bu dee ci jamm ñi la bàyyee koo jëm ci yalla kooku ak jamm la kon mo do buñ ne salatu mooy yalla yalla def xewul ñen ñi ne déedéet moy julli ak sëlmal rek ñet gaay yi dégg ko non mo ne yalla yalla julli te sëlmal ci sun sang Muhammad mi nga xamne mo mot li ñu solo ñu te jiite ñu yónni xaatim nabi na nabi ak mursal bokul nabi moy koo xamne yalla jox nako xam-xam way waxut ko demal jangale ji mursal moy ki yalla jox xam-xam ba pare ne ko ubil dara di jangale ni yalla jox xam-xam nak te ak yoni len bo len bo boole ñom ñep bari nañ lool waaye nak ñam ti yoni 313 lañ tollu muy ñet téeméer fuk ak ñet ñet téeméer fuk ak ñett ñooñu ñaar fuk ak juroom la yalla tuddu ci tur ci alxuraan kon loolu waaye bu ñu waxee diggante nabi ak mursal yi mooy ki yàlla jox xam-xam te yónni wut ko mursal mooy ki yàlla jox xam-xam te ñëpp nag yonent bi sallallahu alayhi moo nekk seen jiit yonent boobu nag la wax ne yàlla maa ngi lay jàng julli si commencé na euh, ci turu yàlla sant yàlla julliwaat ci bi mu ne la maa ngi xamal ne mu kàlla mi li ko njëkk a war mooy na gëm yàlla ñenn ñi ne mooy na xam yàlla. gannaaw bu loolu amee nag ba paré mu jangi fardaay ni moy li nga xamné ne kenn mënu ko defal kenn ya ko defal sa bop lool nak moy lu melni julli moy lu melni lap moy lu melni ak ab koor tey mën wax dimal julli yaa leen ma yow ya ko defal sa bop ta dafa am ay yoon yoy jaar tax julli ga wér ko lool dafa war nga jangi bu dee war la ya ko defal sa bop dafa am yoon yoy jaar tax koor ga wér lu mën lool rek non nga koy topé topé ko doon bam jeex kon loolu la ñu tuddee fa raay ni mooy li nga xam ne kenn mënu ko yóbbuwaale kenn waaw kon tey foofu doy na ndax su ma bamtaana la firi dégg sëriñ bi ne bisimilah maa ngi tàmbali ci turu borom bi arrahmaani yàlla mi nga xam ne mooy xéewalal mbindéef yëpp ci àddina waaye arrahim mooy yërëm ko neex ci àllaaxira de wasallallaahu yàlla yàlla julli bu dee firi mi gën a yomb ngay wër wala boo nga ne wasallaa yàlla julli allahu yàlla ala sayyidinaa wa aalihi ak ay ñoñam wa sahab yi ak ay sahabaam wa sallama te musal leen de ne alhamdu mboolem xaaji cant yee ñeent lillaahi aji nekk la ñeel yàlla rabbil alamin yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindéef yi wasalaatu julli yàlla wasalaamu ak sëlmalam ala sayidna yàlla nekk suñ sang bi mahamadin muhammad de xaatimin nabiina ki nga xam ne moom mottali ñun solo ñi wa imaamil mursalina te jiite ñun yónni ñi de awalu maa yi jibu lu njëkk a war alal mu kala bi si mu kalaf bi tasxihu imaan yi mooy mu wéral gëm yàllaam sama maarifal topp moo xam maa la nga xam ne yuslihu dana héwénal héwénal boo ko bëggee xam mooy defar bii ci moom farataay nii farataay jëmmam ka ahkaami salaat lu mel ni attee julli wa taaratin ak lu mel ni attee laab wa siyaami ak lu mel ni attee koor kon foofu day na dars bu subee incha allah